asalaamaaleykum sama waa ASC bëggee naa leen j'espère que yéen a ngi si jàmm bu baax a baax a baax sama gars yi dafa am suñ benn mbokk taalibe boo xamante ni dafa nekk ci réew mi mm. bëgg fee xaru xaw ma combat bi fii lay amee xaw ma dama ne balaa moo xaru ndax man Fall mbokk taalibeem laa balaa dara di am fii laay ñëw ma waxti génn ci mbedd bi fii nii waxti ndax bu xaroo ba pare nga te waxuma ci dina dina ñaaw man dinaa ci wax balaa vidéo bi commencé merci demee la vidéo abonné bu bu leen fàtte yéen jomar si benn promo code 21 la saa boo di nii nii gaw ma ko mais bi ma xëyee gis vidéo bii gis vidéo bi Boucher simmeeku dem jàkkaarloog Reug Reug di buuxanteeg moom laan nag Boucher mi nga xaru te Boucher nag balaa ma cee xaru balaa moo xaru dinaa génn def ci vidéo wax xool leen Boucher yi <laughs> nga xaru simmeeku na dem taxaw simbeeku yaramu neen jàkkaarloog Reug Reug neen day buuxanteeg moom di xaru yéeyaay moom buse Boucher ku ko dugal ci lii taxaw na def na nii 262 and 3 quarter pounds for Butcher Ketchup. Butcher Ketchup. Gusto fi ka ta kat guy ta ta tu non sa. Ani yeram nañ. Senegal. Ba li may naan doo gis rek rek. Rek rek ñew taxaw. Dem jàkkaarloo Bousse. xaru gënul xaru gënul xaru gënul weesu. 260 and three quarter pounds for Umar Khan. xool leen Bousse. am na fit rek rek na rek rek na rek rek This one's going to be spicy, folks. Thank you very much, gentlemen. <laughs> ba nii nii nii combat bi góoma ko woon mais ma lay ni Bousse Reug Reug du caat du xawma ki nga doon bëreel bi passé de ma bëgg di balaa combat bi di commencé di commencé bu dee Bousse yaa ngi seetaan sama vidéo bii wala bu dee am na ku benn kilifa ku nekk senegal bu nekk fii bu seetaan sama vidéo bi ma bëgg di leen wan combat Reug Reug ak combat Bousse nañ ko njëkkee ci combat rek Reug ba pare après ñu xool combat Bousse xool leen Reug Reug te ponkal nii nii xam nga ni kii xeex na ba sonn xool leen Reug Reug ni mu def jëmm ji xool leen Reug Reug xool leen Reug Reug xool leen Reug Reug Reug Reug gis ngeen ni mu def jëmm ji xool leen bëse bi mu doon bëree caatu ndakaaru bëse bi mu doon bëree caatu ndakaaru xool leen bëse bi mu doon bëree caatu ndakaaru combat bi da kaa naxante ba génn te bëse sama waay nga. gars yi nee na ñu ko bëreel. bëse mi ngi nii di bëree caatu ndakaaru te bëse sama waay la balaa moo xaru nag daa génn ci dëkk bii ci dëkk bii xoba dëkk bii lay xaroo xoba xaroo Bouzé yi nga arrière Bouzé gi lapata gi waaw waaw waaw waaw <laughs> wetu saako yi ndeysaan waaw xale bi gëdd na ko Bouzé yi nga arrière caat Ndakaaru la doon bëre caat Ndakaaru waaw waaw li ma waxoon du dañ de bàyyi ji li la waxoon ba léegi bàyyi ci xel moom da ca de ay pexe daal ci xel de avertissement lay jeex ah, ay pexe daal ci la nekk Bouzé yi nga arrière ba léegi caat Ndakaaru la doon wallaay li ma la waxoon bàyyi ci xel bàyyi jiili ci avertissement jeexa de <laughs> ah waaw Bousse arrière Bousse mii nee na day bëreeg Fadam nag xaritam la day mere woon naa ko mais bi ma gisee vidéo Fadam bi xaw xaw naa ko xaw naa ko xaw naa kontaan ci Fadam bi Bousse bi Fadam di wax ak Ketchup naan ko bul bëree ji wala xaw ma da ko doon encouragé xaw ma nañ seetaan kuy waaj a gaañ ji nag looy tàggatoo <laughs> Fadam yuuxu dina jóg fu ñu ko de monsieur am na fi yow kon faram gëmoo yàlla yow sa wax ji yëpp gëmoo yàlla. yow yàlla mën na lu ne. waaye monsieur nag wax la ñaari baat duma la rek yow yow bi ñu koy door. ñu ngi door frappe. oh. mais yi ba yëpp ak yi toog. Eh, waaye ba combat bi yàlla bu xamat da ngaa fàttali màggal géegi ñëw man na vidéo dama koy def ngir fàttali la bu dee combat bi cinq minutes ci des wala dix minutes ngir yàlla nga reculer balaa dara xew ndax bu see yaa fi génnoon nga ne dara bu màggal gi di ñëw mbirum lu dul lu mbirum seigne Touba ñoro lool la lay fatale bu dee dem nga bay waaj a taxaw sa xel dem ci vidéo bi nga waxoon buse nga ñëwaat affaire yooyu du ko jël parce que méngoowul ak màggalu xaalis bu buse fàttali kon xamaa coowal suba teel li fan yi bu ma ci loolu bu ma laaj buse daa fàggal buse bu ma laaj ci lenn loo xam ne méngoowul ak màggal bu ma laaj ci dara bu ma laaj ci showbiz bu ma laaj ci mbër lamb dara laaj ci xaalis rusul rek bu ma laaj ci dara dara ñoruma màggal gi rek ma ñor bu ma laaj ci dara bu ma laaj dara bu ma laaj dara laaj ma ci màggal bu ma laaj dara bu ma laaj dara bu dee am na ko yor numéro Bousse wala ku jege Bousse bu dee yaay seetaat vidéo bi ngir yàlla wóor ba Bousse nga ne ko màggal gaa ngi ñëw boo waxee loolu dina génn ci combat gi te Bousse mu ne fi mu na ni dara dara dara nekku ci xelam fi mu toll nii lu dul nekk is bu tarxiya Bousse moo ko waxoon envoyé leen ma vidéo bi Bousse damaa man instant yi xam la moo nekk sama bopp bi. te saa yu ma jullee wala saa ma gisee kilifa bu mag ci yoonu murid dama naan ko moom ñaanal ma yàlla soppi ma. mais lan moo la tere nekk is bu. yëfi àdduna. àdduna. Boucher ngi xaru la dama bëgg ñu lire quelques commentaires balaa Boucher di xaru kii nee na bu arbitre bi sifflé rek xamal kii nee soo bëggee xam définition dëgër fit rek xoolal Boucher nee na Boucher Ketchup ku baaxoon bëgg sëñ Touba ndeysaan non après combat bi moo nar a neex ngeen déglu Boucher après combat bi ndax Boucher dina interview Boucher baa duñ ko yóbbu ak corbillard ku am jom ku am jom fayit na ba bàyyi fi place de xeex na ba bàyyi fi place bu ñëpp di xoolee macha allah Ketchup yàlla baax na yàlla baax na yàlla baax na ah yéen nga say doom de wax dëgg yàlla seen papa fi bàyyi lii moom wax dëgg yàlla am nga way yal yàlla sàmm la yal na yàlla taxaw la ndeysaan <laughs> Ketchup ku baax ndeysaan ku baaxoon sax asaf la ku baaxoon xale bu am jom investir na ci réew mi ba créer fi emploi wallaay asim ndeysaan bu demee tamit ah bu dee Ketchup daal yàlla yàlla sàmm ko rek lii de dañ la koy xoolee moom ba faw c'est Ketchup restaurant bu mag bi